siyaare noo ngi leen di baal xaq te di leen balu àq noo ngi leen di ñaanal jàmm tey sàkku ci yenn itam ngeen di nu ñaanal jàmm noo ngi ñaanal nag mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaarlool ñëpp ngi ñaanal mboolem kilifa yi diine yi di ci jiital nag Cheikh Sidi Mokhtar xalifa Xaadimu Rasul noo ngi koy siyaar di ko doon lee ñaanal fan wu gudd lool waxande ak wér yaram waaye ci noonu itam la ñuy siyaaree mbooleem seexi sëriñ Touba di siyaare itam sëti sëriñ Touba waaye nuy siyaare ak a ndokkeel itam xalifa sëriñ Mamor Diarra de sëriñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur na nga koy siyaare di siyaare ak njabootam gépp nag gu góor ak gu jigéen waaye ci noonu la ñuy siyaare ak Abo Mbacke xalifa Cheikh Amadou Fadel Mbacke ak mboolem njaboot Cheikh Amadou Fadel Mbacke gépp di siyaare Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine eh, di siyaare nag ñi nga xam ne itam ñoom la bokkal diine ji moo xam xaadir tiijaan laayeen janaba ñaseen salsal da baaxloo ak képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illallah noonu lay siyaare di siyaare nag bu baax itam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaktoum waaye di siyaare itam bépp mu xaddamu si daal si Malick di siyaare sëriñ Cheikh Tidiane Niass xalifa alhaaji Ibrahima Niass ak itam bépp taalibe baay foo mën a nekk biir réew ak bitim réew mu mel ni nag noo ngi siyaare ñu ñu jàkkaar loolu ñëpp di fas yéene àndaat ak yéen nag ci seen émission bi nga xam ne baaxoo ngeen ko ànd ak noonu ay gis gu ne te itam nu bokk ak équipe bi nga xam ne ñoom la ñu baaxoo liggéeyandool xam ngeen ne toppoon ngeen nag jëfi yàlla muy sunu première partie ñu war a dugg ak yéen nag ci ñaareelu partie bi muy ñaareelu xaaj ci jëfe yàlla toppoon ngeen jëfe yàlla ba fi nga xamee ne nag fi la ñëwee woon dëkk bii nga xam ne ci la buur bi nekk nga xam ne buur bi moo doon buur jëdd dëkk nag ci dëkk bi ñuy wax réex waaye ngeen gisoon ne ba mu dikkee itam am na ñetti sàmba yoo xam ne duggoon nañ ci dëkk ba gannaaw buñ dencee seen saako ya ca armeel ya te jifi yàlla gisoon ko ba wax ko buur jaarle ko nag ci waxi picc ndax daf may dama dégg léegi waxi picc lu picc sab xam naa ko ngeen toppoon nu ba ci la ñëwee woon nag ci buur ne ko dafa am ca armeel ya ñetti bàmmeel yoo xam ne bàmmeel bu ne saakob or lañu fa suul xam ngeen ne toppoon ngeen ba buur yónni ci jëli nañu nag or ba ca armeel ya waaye nag bañu ñu buur bi dellu déggaat nag picc mu sab mu daal ni jëfi yàlla yaa waxoon ne dégg nga waxi picc tekki nga wax bu njëkk ba picc mi lu mu waxaat mu ne ko picc mi nee na am na ñetti sàcc yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi ay gan lañu buur daldi yebal garde yi ñu dugg dëkk bi nag gisee ñi nga xam ne dëkkuñu fi ba gisoon nag ñett ñooñu nga xam ne ñoo di Samba Boye mu di Bakary ak ki nga xam ne moo di Keeba ak itam Dumbuya ñoom ñett ñooñu lañu indi nag ci kanam buur ngeen toppoon ba buur bi nag war a wax ak jëfe yàlla lu mu nar ci sàcc yooyu foofu la tënkoon tey nag ñu war a dem dëkk bi ñuy wax saay fekk ji fa nag jëfe yàlla ak buur bi ñuy wax jéddu ak ñetti sàmbaaboo yooyu nga xam ne ñoom la buur jàpp jëfi yàlla bu daldi koy woo mu ñëw taxaw ñu daldi jëli nag ñett ñooñu nga xam ne ñoo di sàcc yi nga xam ne ñoo gën a nekk ay këlfin ñoo gën a nekk mboŋ ñoo gën a nekk sàcc yu mag mu di keebaay ak ki nga xam ne mooy dumb ya ak itam ñetteel bi mooy Baxu Yox ñoom ñett ñooñu nag ba ñu dikkee buur laaj leen kenn ku nekk fu mu dëkk ak lu ko tax a jóg waaye mel ni ñoom ñoo bokk benn dëkk li leen tax a jógit mel na ni ñoom ñoo bokk métier ay sàcc lañu ñu xamal itam nag buur gédd ne ko nun li ñu taxoon a jóg mooy dañ doon jàll waaye mu guddi ñu jël nag sunu alal gas lu mel ni ay bàmmeel ca armeel ya denc ko buur ne kon yéen yéen moom saa koy or yi ñu xoolante ne ko waaw mu ne yéen ay sàcc ngeen ñu ne ko waaw mu laaj leen kañ lañ dalu sàcc kenn ku nekk wax kañ la tàmbalee sàcc ba ñaata at kii ne ko man ci sama juróom-ñaari at laa tàmbalee sàcc kii ne ko man juróomi at laa tàmbalee sàcc kii na leen man day bi ma feree xàmmali ko rek ci càcc laa xàmmali ko nga xam ne daal ñoom ñett kenn ku ci ne sàcc nga lu war a mat ñeent fukki at wala juróom fukki at te kenn mësulaa laa jàpp léegi nag buur jëdd wax ak ñoom daal ne nag nañ leen denc ba àjjuma ma dajale waa dëkk bi yépp xamal ne leen ay sàcc ngi ci dëkk bi daañu leen nag tëj ba àjjuma ñu rey leen ñëpp yi seede wala ñu tëj leen seen ngir dund ñëpp yi seede daldi jël nag sàcc yi delloowaat ca fañ leen dencoon daldi fay bàyyi nag buur daldi xamal nag jëfi yàlla ne ko yow dama bëggoon su àjjuma ak jàmm nga bokk ak waa dëkk bi ñëw teew si ndax yow wax naa la ne ku manqué sama nguur nga ndax lu nekk am naa ko ci nguur gi ba mu des koy wax ak baahima yi di wax ak njanaaw yi gannaaw yow dégg nga waxi njanaaw dégg nga waxi baahima dama lay téye ci dëkk bi taf la ci sama bopp ngay sama adjoint jëfi yàlla nangul ko loola gannaaw bu mu tàggoo jee ay bokkam ba noppi ajjuma jot na buur jëdd daldi woo nag mboolem waa dëkk bi la sant géwél bi na ko yéeneel ma dëkk bi yëpp daje mu daldi yéene waa dëkk bi yëpp daje ca pénc ma nga xam ne gone yu ndaw yi amuñu sax fu ñu taxaw dañoo mujj yéeg ci kaw garab yi ngir mën a gis mag ak góor ak jigéen màggat ak ndaw ñëpp a teew ca pénc mi daal di génn nag toogukaay yi tegal ñi nga xam ne ay notable lañu di ay kilifa daal di génne piliyaanu buur bi daal di génneel nag jëfi yàlla moom itam piliyaan teg ko ci wetu piliyaanu buur buur daal di wax nag waa dëkk bi na leen dama bëggoon nag waxtaan ak yeen li waral waxtaan wi nag bala ma koo door damay wax sama dag yi ñu indil ma ñett ñi nga xam ne ñoo waral waxtaan wi daal ne gees dag ne ko dem leen ngeen tijjil ma ñetti sàmba booy yooyu ngeen indil ma leen ñu dem ña jëli ñetti sàcc ñi ñëw taxawal leen buur na leen ñett ñi ay sàcc lañ kenn ku nekk ci ñoom ba nga dalee sàcc ak léegi mat na juróom fukki at ak lu topp kenn mësu leen a jàpp yàlla dogal nag ñu jàpp leen gannaaw yàlla nag ci tax ñu jàpp leen mooy xale bii di jëfe yàlla ndax dafa demoon jàngi xam-xam xam-xamu mën a wax ak lu yàlla bind bi mu dikkee nag ci man xamal may fa mu dëkk na ma nga dëkk dëkk bu ñuy wax kàngaarloo waaye fii mu nekk nii nag dëkk bi ñuy wax guta fa la jóge nee na itam xam-xamam bi mu jàngi woon mooy mën a wax ak lu yàlla bind nga xam ne day wax ak njanaaw yi waaye day wax ak rabi àll yi day wax ak mala yi ci biir kër yi mbaam yi fas yi ak xar yi ak bëy yi lu yàlla sàkk rek mën naa wax ak yow mbooloo mi nag yéemu kenn ku nekk xool sa moroom ñu wëlbati ko xool jëfi yàlla ba xam xale bii xam-xam bi fan la ko mën a ame nit ñi kenn ku nekk yéemu buur na leen bi loolu yi amee nag dafa ñëw ci man ne ma xam-xam bi ma am suma sañoon jëriñ ci réew mi te gannaaw may buur réew mi suma sañoon nekk ak yow loolu la ma wax fiñ ñu koy waxe am picc mu sab ma ne ko ah, yow kat sa xam-xam léegi mu leer ndax picc sab na wax ma kon lu picc mi sab mu ne ma picc mi nee na ku dem ci armeel ya da fa fekk ñetti gasiiti bàmmeel yu bees bàmmeel yooyee bàmmeel benn bu nekk suñu ko wàqee dañ fa fekk saako or ma daal koy boole ak samay dakk ñu dem ca armel ya nam ko waxee woon it noonu la amee bàmmel bu nekk bañ ko waxee fekk nañ fa saako or ñu indi ko bi ñu dikkee fi ñuy waxee ni tuuti mu dellu amee picc mu sab di picc mi gën a tuuti ci picc yi muy rammutu ma ne ko ah, yow kat picc sabaat na mu ne ma waaw ma ne ko lu wax mu ne nee na am na ñetti gan ñu dugg ci dëkk bi muy ku ñuy wax Bakary ak ku ñuy wax dumb ya ñetteel bi mooy Keebaa dañoo wax ne ñoo suul saako ya ca armeel ya ñu ngi ca dëkk bi xamuñ fi kenn ñu ngi ca pénc mi lii la picc mi wax buur daal ne ma daal di yeble samay dak ñu dugg dëkk bi di seet ñi fi dëkkul ba ñu waree ñett ñooñu la indi mooy ñett ñi taxaw ma bëgg na yéen waa dëkk bi ngeen fonkal ma kii nga xam ne mooy jëfi yàlla te xam ne bis ni ki tey na ngeen jàpp ne mooy sama loxol ndeyjoor mooy sama wuutaakoon lu mu wax maa ko wax lu mu waxul waxuma ko te ku mu rey nag maala la reylu ku mu jéggal ma bàyyi la su ko neexoon tey ji ñëpp fanaane ca prison ba su ko neexoon ña nekk ca prison ba tey ñu génn leen mi ngi nii mooy jëfi yàlla mbooloo mi daal di kenn ku nekk fa nga toogoon nga jóg dikk nuy jëfi yàlla jox ko ñaari loxo daal di koy sargal dénk ko sa bopp xamal ko ne ko man maay diw diw ma juróog diw ci dëkk bi laa dëkk def daal tubaab di wax présenté wu ngir bëgg jëfi yàlla xam la ndax gannaaw mooy léppi buur mooy loxol ndeyjooru buur mooy adjoint buur mooy porte-parole buur kon ku mat a xàmme la ba mbooloo ma nag rëj rëjee ba dal la buur nag daal di laaj jëfi yàlla ne ko nag dafa am loo xam ne bëggoon naa koo waxtaan balaa mbooloo mi tasaaroo loola mooy dama am takkoo boo xam ne dama cay dem par ajjuma ajjumay tey jii nag woote bii moo taxoon déwuma ci su ma ci masaa dem nag danaa ci am ay fan waaye ji yoon danaa fa yàgg ndax yow laa bëgg a dénk sama gannaaw bëgg laa dénk dëkk bi rawatina sama kër sama benn jabarit moo fi nekk ma dénk la ko muy wéy ci say waaw loo ko sant mu def loo ko aaye mu bàyyi ba keroog may jóge dëkk bi ñuy wax saay ba ñëw su ko defee ma soog laa yewi bëgg na waa dëkk bi seere loolu ñu xam ne su ma fi nekkulee yaa fi nekk yaay bóor bi di doxal li nga xam ne moom laa doon doxal lépp loo xam ne doon naa ko bañ nga bañ la ma ko waaye lépp lu mu bëggoon nga bëggale ma ko te kenn ku ci nekk na la jox cër bu toll ni bi mu may jox man buur kooy na naa ko rey keroog su ma dikkee rey ko koo ne naa ko tëjit su ma dikkee tëj ko donte sama jabar ji la sax kon dëkk baa ngi sa loxo ñii nag di ñett ñii ma lay laaj loo ci xalaat ndax ma rey leen léegi walla ma tëj leen seen giir dund walla ma bàyyi leen ñu dem loo ci wax laay def jëfi yàlla na tekk ba yàgg xelam xalaat ne baayam dañ ko doon sàcc la woon te doom bi nekk tëb tëbinu baayam moo war rëq ndiggam mu doon jóg nag di seeti ku ko jàngal xalam ak ko ko jàngal sàcc gannaaw yàlla boole na ko ñetti sàcc yoo xam ne sàcc nañ lu ëpp juróom fukki at te kenn mësu leen a jàpp kon xam na ne ñii ñu am xam-xami sàcc lañu kon bu leen reyee mën naa ñàkk du am sëriñ bu leen tëjee giir dund it mën naa nekk du am sëriñ kon na leen denceen di batal mu daal di jóg delloo booloo mu njukkal gërëm leen sant leen xamal leen kon nag li nga xam ne buur jëdd wax na ko ci foofu laa fas yéenaa jaar léegi nag yéen waa dëkk bi bis ni ki tey na ngeen jàpp ne maay buur ba keroog buur di ñëw ñett ñii nag nga xam ne mooy ñetti sàmba booy yi te buur laaj ma ndax daf leen di tëj am da leen di rey am da leen di bàyyi li ma bëgg mooy nañ leen delloowaat ca kaso ba ba ma seet sama xel ak sama xalaat su yàlla defee buur ñibbisi ma wax ko li ma bëgg ñu def leen ñu daal ne ko nag ay ca yaa di jubóog nag jëfi yàlla ca loola mbooloo ma tasaaroo buur yewi leen mbooloo mi tasaaroo werante wi nag bari na lool ñii buur de li mu def da buur waaye man ànduma ci ndax koo xam ne tey ko ma sa gis dëkk ba mu dëkk danga koo dégg waaye xamoo moom ci boppam xamoo ndeyam xamoo baayam nga am confiance ci moom bu toll ni di jël sa nguur di ko dénk man de loolu doyuma surtout nag ko am xam-xam bay wax ak ki picc kooko daal loo koy def na ko xam kenn ki ne ko man de loolu sax yéemuma li ma yéem mooy këram gi mu ko dénk ndax ku ne xam na ne jabari buur mooy njaatigil bépp jigéen bu nekk ci dëkk bii kon ku ko war a mën a àttan ku dul borom këram di buur amut kon su ko ko dénkee bu ëllëg yi ak sibbir bu ci amee lu mu naqari ku koy wax fan la koy waxee ji werante bi daal bari na ca dëkk ba ñaar ñoo seen ña ngay ànd di wax te la ñuy wax mooy diggante buur ak jëfi yàlla waaye li ci ma nekk daal buur defaru na préparé na defar na itam ay yóbbalam yépp woo na jabar ji mu ñëw mu dénk ko jëfi yàlla ne ko kii nag ci moom ngay xool lu mu la sant defal loola lu mu la loo nga bàyyee ko fu mu ne bul fa dem bul fa dem moo yore nguur gi ci bëgg-bëggam ngay wéy ba keroog may ñëw Jabal dina ko baax na buur daldi tàggu jafe yàlla daldi di préparé nag takk nag fasam ànd ak gàngoor gi mu baaxoo àndal mu nga jëm na dëkk ba ñuy wax saay dem nag ca takkoo ba ba mu demee jëfi yàlla toog ba ñetti fan jabari buur bi moo koy indil ndékki moo koy indil añ moo koy indil reer defaral ko néeg bi soog a dem néegam tëri ba ñetti fan ya jàllee mu am benn bis mu am ñaari gaggi buur yu jagatoo maanaam ñu jàppoo gaal gu mag dag yi ay ponkal lañu ñu jàppoo gaal gi daldi jaar ci néeg buur sar ci buntu wàll sarale ba néeg bi dafa am ñaari bunt dafa am bunt boo xam ne boo jógee ci biti ci dëkk bi muy bunt bi gan dugge foofu ngay jaar dugg ci biir néeg bi waaye soo jëmee nag ci biir kër gi ci ruq jigéen ña ca bunt ba ci des ca ngay jàll ñooñu nag di jàppoo gaal gi jaar fa nuyu jëfi yàlla jaar ci bunt ba ci des dem ñu demee ba ci ëllëg sa ñu de jàppawaat gaal gi jaaraat ci néeg bi jàll ci bunt ba ca jëm ci ëtt ba ñu def ko ñetti fan def ko ñeenti fan def ko juróomi fan bu jëkk ba bam leen laajee ñu ne ko dafa am jabari buur ku muy fóotloo fóot mi la ñuy yóbbu suñ ko fóotee paase ko ba ci ëllëg saa ñu jël yëre yi am póot la ndekete booba jabari buur moo am aw faram woo xam ne mooy dugg ci gaal gi daje buur bi jël ko yóbbul ko ndaw si mu fanaan su asamaan setee waa ju duggaat ci gaal gi ñu jagatoo jàppoo gaal gi jaaraat ci néeg bi dem jëfi yàlla nag ñi ngi jàpp moom liñ ko wax na ko jabare buur mooy joxe am ay yéreem ñu fóotal ko daje ko ko yóbbul suñ ko fóotee paase ko ca ëllëg sa ñu jëliwaat yére yi indiwaat jox ndaw si loolu mooy indi gaal gi di fi jaar ka jaaraat mu wéy ca loolu nag xalaat boobu ba benn bis mu ne man de waay góor ga am na lu ma waxoon noon na ma woon ku la yaakaar te bu tas yaakaaram te buur daf maa bàyyee gannaawam dénk ma soxnaam te ma gis daal gaal gi di fi jaar ndaw siy fóot te man daal am póot wax dëgg yàlla ma ci xam soo fóotloo tey mën ngaa bañ a fóot lu suba wala ginnaaw suba waaye bët bu set akum fóot daal man xaw ma ko man de gaal gi bu dikkatee dinaa ko ubbi xool fóot ma te ëllëg sa ña gaal ga dellu siwaat ak gaal ga waajaa ngi ci biir gaal gi nam ko daan baaxoo defee naka lañ dikk ba ci néeg bi ñu romb nag jëfi yàlla si mu toog ci gàngu naayu buur mu daal leen di fott su dag taxaw mu ne leen waaw yéen lu nekk ci gaal gi ngeen ñu ne ko jëfi yàlla lañ la waxoon démb ak ci démb mooy suñu waxu tey gaal gi jabari buur mii ay yére ma ci nekk day fóotloo ku nekk ca biti buñ demee bàyyi fa yére yëpp mu fóot ko paase ko bu ci ëllëg saa ñu jël yére yi indil ko ndaw si mu ne waa léegi kaale mu ubbi gaal gi ñu xoolante nag ne ko ay yére dong la mu ne waaw waaye itam du jaadu ñu dénk ma lu toll ni kër lu toll ni nit muy jabaram ma wëlbatiku di am kumpa sama xel di ñaaw may wee njort nañ ma ubbil gaal gi naka ñu ne kulbét gaal gi nag ci kaw ñàkk pexe waa ji na xujj jëf yàlla daal yëngal boppam xam na leen lii mooy póot mi ndag yi taxaw mu ne li mooy póot mi daal ne waaju ci biir gaal gi yow moom xam nga ne taxuma ngay wax yow moom aju dee ba noppi nga waaye ñaar ñii nga xam ne ay daggi buur bi lañu di ànd ci trikaas yii ñoom lay jëkk a rey soglaa rey yow su ma noppee nag ndaw sii nga xam ne man la bëgg a teg gàcce ndax ba fa jëkkëram nekkee daawu ko def jëkkëram dem dénk ma kër gi dénk ma ko moom mu di ko def moom it dama koy rey daal ñu leen baax na jël leen gaal ngeen teg ko fee daal ne waa ji demal nga taxaw ne waa ji génn dem taxaw mu daal ne dag taxaw leen ci wetu waa ji dag yi ñëw taxaw ci wetu waa ji jëfi yàlla daal na ñokket ne nag day woo dumunanke ñoom ñi nga xam ne bu doon sunu réew ñi ñoom ñooy fara kaba yi ñoom ñoo war a mu daal na ñokket di leen wooyi xelam na yar ci ne góor gi kat jaayoon na ko baat baat bu mooy lan koo jekkut na ko jéggal te baat bu ñor na ko lool kon jekku na waa ji nekkoon ci gaal gi jekku na dag yii nga xam ne ñoo doon yóbbu gaal gi ak a ñëw jekku na jabari buur bii nga xam ne moo daan tax ñu indil ko waa ji kon léegi nu muy def kon léegi koo jekkooti na nga ko jéggal daldi dugg mu ne nag ni muy def mooy daf leen di tëj du leen rey fi saasa waaye na leen tëj ba xelam dellu si buur it mën a ñëw mu xamal ko defo yi nga xam ne am na su buur dee rey rey su dee jéggale jéggale suy tëj ngir dund tëj ngir dund boole ko ak ñett sàmbaaboo yi ñu yóbbu leen ca kaso yi tëj leen ñoom itam ñu fekki fa nag dumb ya ak ki nga xam ne mooy keebaa ak seen ñetteel bi muy ñetti saade xéene yi sàmbaaboo yi ñu dem bañ leen tëjee nag dëkk bi coow li bari lool werante yi bari ak commentaire yi jabari buur bi ay bokkam ñëw ci moom ne ko ah def nga lu rëy de te it fi nga ko defee sa biir juddu nga ko defee te jabari buur nga woon ñu lay xoolee buur nga def gii njaaloo gu mag te xam nga buur bu lay rey ñëpp day seede yow bu la buur rëytoon dootu am jëkkër ci dëkk bi réew mi sax laay wax waxuma laa nag xam nga ne buut lay rey yow danga nga dee reyaale sa dag yi sa dagg yi nga xam ni ñoo doon liggéey yow ndaw si nag tiit daal di xalaat daal ne waa baax na dinaa am pexe waaye suñu mbokk yi ndaw si dinaa am pexe jooju mu wax fi la tënk na kon jëfi yàlla ba ay bis ji di ñëw ñu seet ndaw si lan mooy xalaatam ak ban pexe la war a am balay boobu <clears throat> ñu jox euh, lettre waaw kaay kaay jox ma bataaxel yi ñu xool ba xam waaw bataaxel yi ndax waxtu wi dëgg mal na waa ñii euh, waa kër euh, Mortala Fall la Mortala Fall nekkoon marché bu Caaroy Gaar ca Dakar jamono yi nag mu nekk ci centre commercial moo Talla Fall ak ay soxnaam ñooy am mbégte di bëgg émission bi nga xam ne moo di ëttu démb ndax nee na da di fàttali seen démb ak ban lay rat bataaxel ma xool kii itam ndongo géy la di sëfooru Mbàkke Tuubaa nekk ci cité Sonatel ci Touba Ndongo Gueye ak soxnaam soxna ndongu caw ak Fat Diouf ak euh, Maguette géey di magam nekk ca Dakar ñoo bind taaxel bi ak Issa Gueye seen doom di rafetlu ëttu démb ndax nee nañ ëttu démb euh, xale yi war nañ koy bàyyi xel waaye mag yi it war nañ koy bàyyi xel ndax dañuy fàttali seen cosaan fan bataaxel moo ci topp ñii njabootug sëñ Abdoulahi Mbàkke yàllaay buur la nekk ci Mbàkke xewar mu di soxna awaka ak soxna defe naa afi géey wala naan géey waaye am na ci lu mën a doon ak sëñ Taala Mbacke ngir doomu sëñ Abdoulaye Mbacke ak sëñ mustafaa Mbacke moom itam dañuy wax ne émission la boo xam ne dafay yaraate te it dañ ci mën a jànge lu bari ci wàllu àdduna ba mën a xam bu ëllëgee ak si lu dikk noo koy doxale jërëjëf njaboot suñu Abdoulaye Mbacke yàllaay buur ak ban fii itam eh, sëriñ Daouda Dieng délégué de quartier Touba Njaareem sëriñ Daouda moom itam sunu auditeur auditeur la bu ñuy faral di bàyyi xel moom ak waa Touba Njaareem gépp nee na émission bi leen rek moo ko ci metti mooy gàtt gi moom nee waxtu woy daf koy déglu di ko seetaan ci internet di ko déglu itam ci Alasar Touba Média jërëjëf sëñ Daouda Dieng waa Dieng xam naa lettre dañoo bari xanaa dañuy yem foofu tey ba ëllëg su ko defee nag mbokk yi euh, ngeen xam ne seen émission ëttu démb équipe bi ñu àndaloon tey ci caméra noo ngi ànd ak euh, sëñ Maam Thierno Faye mi ñu baaxoo àndal Euh, ci ñaarlu caméra bi tam ñu ànd ci ak euh, sunu réalisateur bi sëñ Sonia Mbacke Maar waaye ngeen xam ne itam sunu rësër moo di euh, sëñ Cheikh Amar moom itam bokk ci équipe bi waaye ngeen xam ne soxna Nogay Mbodj ci wàllu décor bi ak costume yi am ñu ngi ko sant di ko gërëm. xale yi nga xam ne nag tey ñoo fi teew xale yi tubaarkàlla xale yi doyal ngeen doyal ngeen doyul leen ah. yow noo tudd Xadi Njaay Xadi Njaay nag Fàllu borom bataaxel yi soxna maam bint waaw kon nag euh, mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox euh, di daje beneen yoon incha allahu ci waxtu wi seen émission Ëttu Démb di leen tàggoo fii ci ñaareelu xaaju jëfi yàlla